Pastef Ousmane sunk ak patriote yi amal nañ seen ndaje bu njëkk gannaaw ba ñu jotee ci nguur gi li sabab ndaje bi nag mooy waxtaanee projet bi ak taxawaay bi nga xam ne ndaw ji war nañ ko am ngir mu antu. ñun tànn suñu dëj ba tombe ci nguur dañoo togg projet présenté ko Sénégalais yi xeex fukki at yoon bu métti woon na lool ngeen am ci nag taxawaay boo xam ne dinaa ci dolli waaye dañu ànd ak dëgg rek. kon dama bëgg nit ñi ànd ak tey ak dal. Ousmane Sonko mi ngi woo militant yi ñu jël slogan bi don de soi pour la patrie ñu def ko muy dëgg maanaam boole seen i doole ngir gunge projet bu Pastef. dinañu def réforme bi ñu war a def mais bu ñu paree soxla nañ leen yéen en volontaire ngeen dem fekk Sénégalais yi ci seen biir fekk leen ci marché fekk leen ci gare routière yi convaincre leen ni dañoo war a fay lépp pour ñu defar réew ma bëgg leeral Sénégalais yi en tant yor nguur te président Bassirou Diomaye Faye jiitu ci mooy réew mi il faut ñu delloo ko fi mu ne woon bu ñu sukkandikoo ci usmaan Sonko seenu falu nag ndaw ñi dañ see dugal seen loxo bu baax naam sax metti woon na wante nag mu leen di ñaax ñu bañ a bàyyi benn yoon. nañ ko daan defee jëm barki dem gis-gis leer na yére bi dëgër na loxo yi set na.